Diallo ak ma neex te yàlla tax ak neex te yàlla ma xamet yàlla na yàlla fa jàmm yàlla may na li nga bëgg si dàmm la xamet damaa tëbb sama xol jox la ko parce que seeni naa mu xamet koo bëgg bëgg la yàlla yàlla fa jàmm dama koy may après après ma ko jox mu yóbbaale waaw mais faram de faram temps yi nga xaalis de man kam man fa ma gis nii moom faram faram temps yi yàlla combien temps yi yàlla nga lay dimbali de laf cax moom temps yi moom ma sa paawu moom war nga ma ko jox moom mu jàpp waaw am dëgg teew fi yàlla mais giri gars na mën a jot maa ngi ne rek maa ngi sant yàlla rek maa ngi nii ñëw yow rek jàpp ci bés bi rek xam forme quoi forme la waaw ku rek hein mais bon euh, lamba fête la pour la lamba ah. tey boo xoolee tey euh, euh, bëre simple moom boo xoolee bi sa doom ubbee ba léegi mise bi ñu bon mu nekk loo xam ne waa làmb ñu bëri simple de piso si seen bopp. ba pare initiative bi tamit ki ko ki ko ki ko waral bés bi moom Doro Gueye nekk nit ku baax boo gisee ay ay de valeur rek ñoo fi teew mooy wane na nit moom boo baaxee soo wootee ñu baax ñi rek ngay gis xam nga ba pare nag bon euh, ñun suñu suñu ay suñu suñu famille la woo xam nga waa làmb xam nga miss bi ñu teg nii 10 millions pour. Euh, mise ça veut ya, dire lebih tey bi saison bi ubbee ba léegi soo ko fi tamit en plus bu ñoo teg drapeau de paix am nga drapeau de la paix. voilà te tamit làmb bari na eh, loo xam ne tey nit dina ko bëgg a jàllale si message ci làmb la gën a jaar gaawee lu muy woote jàmm jàmm nag eh, damay wax ni eh, nit bu koy wootu nit bu koy woote ci ay naxe sax nit ñi dañ ko parce que bu yàggee mu nekk dëgg te ki ko wootee muy Doro Gueye nit ku yàlla baaxal man miinu ko mais baax baax yi muy def ci dëkk bi di jàppale nit ñi di jàppale néew di doole di jàppale jàppale ñu mënul wax dëgg yàlla jàppale ku ma xam ak ku ma xamul loolu booy na nopp ñu bari moo tax nag bi ma ci làmb laa bokk jiite association bi ma yëgee mbir bi nag man dinaa bàyyi sama yëf yëpp wax dëgg yàlla en tant que leader écurie Fass

Thiès Saint-Louis la région yëpp dañu dañu dañuy bëgg lii li tey am na région yu bëri yoo xam ne ay Fatick ay doom dañuy bëgg ay lii nii moo tax ma wax naa ko ko nee naa ko yi moom mosañoon du yem Dakar rek parce que jàmm voilà parce que message mën nga ko jàllale mën nga ko jàmm fas façon bu nekk surtout làmb nag xam nga moo tax dañuy ñaan yàlla mu mu mu mu def ko si yeneen région yi am mbégte lool mais malgré que temps bi xoj nañu am occupation yu bëri bëri bëri mais yàlla xam ne de mënu ma woon bañ a ça me fait mais mais mais amateurs yi namoon Sénégal yi. amateurs dañ ma xaar rek dañ euh, ma xaar dañ ma xaar maa ngi waaj maa ngi làkk suma ruq xam nga di def ay façon mais dañ ma xaar dañ ma xaar. ñu xaar la ci ma préparation nekk ci préparation saison doo ubbi te incha allah ñaan nañ yàlla bëre décembre ou janvier. xam ah, ñaan nañu yàlla daal en toute sincérité ñu nekk ci préparation.